aousubillahi min seytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim bisimillahi rahmaani rahim bisimillahi rahmaani rahim barke borom Touba barke borom Touba barke borom Touba jërëjëfe Sëriñ Touba jërëjëfe Sëriñ Touba jërëjëfe Sëriñ Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe ci turu Touba Parma seen ndongali Cheikh Modou Ndiaye moo dellu di leen nuyu di leen siyaar di jiital ci nu yóbbeeg siyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha ca jëwriñam ji ka fi teewal di Cheikh Abdoul moom sëñ Abibu Mbakke ñi ngi koy siyaare bu baax di la jotal sunub siyaar ci mboolem njaboot ga nga jóge di njabootu Serigne Touba ñi ngi lay jotal sunub siyaar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal yàlla ak yonent bi ak sëriñ tubaab mi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal can si ca ca nun ñuy suñuy dongo yu leen i ànd ñoom ci liggéey bi noo ngi leen di ñaanal yàlla may leen fan wu gudd ànd ak wér ak wérle di ñaan liñ yéene ci liggéeyu sëriñ tubaab yi yàlla may leen ci ndam ñuy sax di di ci am ngërëmul sëriñ tubaab ba bañ koy fekk cam yeex lool nag ñu ànd kook ñoom di sant bu baax nag ndax nun Touba ca Parma am nan ci loo xamante ni bii lii ndam la ci nun waaye nag du ndam lu ñuy jël di ko tiitaroo day ndam loo xam ne dañ koy jël def ko ak laxasaay ndax bu ñee dañuy wootee liggéeyal Touba ca kanam yaakaar naa ne ndaje miñ fi jëkk a def ci mu rëy Parma gi lañ ko defee woon kon jàpp naa ne amoon ca ndam moo tax ñu delloo siyaat ka fi di ko fi defee kon noo ngi yaakaar ne ndam loole ngeen ci amoon na tim noo ngi am yaakaar di ñaan ci suñu borom bi ne da ngeen ci am lu ko lu ko gën a kawe ndax sëñ Tuubaa moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la kon nun ñëpp nan xam ne bu ñee Tuubaa ca kanam Tuubaa dem na ca kanam bu yàgg xanaa kay kuy bëgg a ànd ca lay yóbbutu lay gën a feeñal Tuubaa ca kanam waaye Tuubaa moom ma nga ca kanam ni sëñ tubaa nekk ci kanam ni la nekk ni la tubaa nekk ci kanam ku jëf dana dem ku jëful dana dem yal na nu yàlla boole ca jëf ja muy la maam Cheikh Ibrahima Fall waxoon ne liggéey sëñ tubaa bërigo la buñ kaske teg ko ci kaw montagne bëriŋ ko mu jëm ci suuf teg ci loxo rek la dib sak kon liggéey suñ tubaa bu ñu ko wootee képp ku dib taali bi di murit da nga caa war a teg sa loxo bokk ca sag ba waaye boo ci tegee mu dem boo ci tegul mu dem kon nun ñëpp nan amuk ak dégg rek la laaj Touba ca kanam ak dégg dongu la laaj waaye dégg gi nag daa am loo xamante ne bii moom lan war a jiital muy lan muy biñ jëlee suñu jëm jox ko sëriñ Touba te suñ Touba tànn ndax kat murit bu ne du ndey ju liggéey du baay du maam du dara sëñ Touba mooy xool ku ko neex mu tànn nga doonu murit ginnaaw sëñ Tuubaa tànn noonu ñuy tuddoon ne ay murit lan li koy wéral jëf la jëf jëf nag maam Cheikh Ibrahima Fall jàngal nañu ko dangay nangoo ñaq nangoo ñuqi ca mi sell dangay nangoo ñaq nangoo ñuqi di ko joxe cam sell sell gi nag lu am solo la ndax nit mën naa liggéey alal di ko joxe mu bari lool ca bari na fi toll nii ci jamono ji waaye nag li jëriñ nit ki mooy lu sell li nga def joxe ko ci Sëriñ Tubaa tax kon nun ñëpp nañ gën a góor góorgóorlu di sellal suñu pas-pas di sellal li ñuy liggéey ca nangu koo joxe Sëriñ Tubaa loolu mooy soññee bi amul leneen luñ ciy teg ndax buñ toogee li ci des duy wax fi toll nii yoonu murit wax yuru ko li ko yore mooy jëf ca tegu ci yoon wi sëñ bi bëgg ca noppi ndax coow li coow li ñi nekk ci bind bi rek la waaye ñi yor baag bi di duy ci biir teen bi coowuñu mooy ñiy liggéey ca yàlla ak bi suñ bamba rek tax ñi ngi ne cell di def li ñuy def nan fexe ba bokk ci ñooñu nag ca noppi loolu mooy soññee bi kon nag nañ gën a góor lu baax noo ngi leen sant di leen gërëm di la faru taxawaay yi yeneen soññee yi ci des nag keneen bi ngi ñëw bu ñëwee dana gën a moo gën a jotal sama kàddu moo gën a rafet kaddu moo ma gën a rafetum xel waaye man li may wax rek lii la mooy sant nan gërëm nan di gën a sant bu baax bi Cheikh Abdou Lahad Mbacké mii teewee fii teewe liggéey bi nu wanaale koo tim liggéey bi sëñ Tuubaa bii di barab bii di barabu sëñ Tuubaa boo xamante ne bii dañ koo leboon ci turu sëñ Tuubaa ca tey jii fi ñu nii lew na domm nag sëñ Tuubaa lew na domm sëñ Tuubaa muy loo xamante ne bii ndam la ci noonu ndax bañ ko fi def booba booba matagul woon tey jii ñuy wax ak yéen ne kër sëñ Tubaa gi lew na doom amatul lenn lu ñuy topp sëñ Tubaa ci bor kon nun dongo yi nag ak laxasaay la goo xam ne moom lañ fas yéenee laxasaay bëgg a jé fas yéenee jëmmal kër sëñ Tubaa gi bu njëkk daa am lu topp rek loola nag léegi tegu na ci suñu loxo li ci des nag mooy ñu jëmmal ko kon noo ngi ciy ñaan ñëpp ngeen ñaanal ci yàlla ba bu ngeen fi dellu siyaatee da ngeen fi gis jëmm joo xamante ni bii ci kër sëñ Tubaa ku ko xool dana xam ne lii yeyoon ak sëñ Tubaa loolu rek mooy kàddu yi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf jërë Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraam maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah